fashir bi dafay ñëw bu gisee aay bi aay bi dafay ëmb maanaa yu bëri mhm. maanaa ya mu ëmb nag dañuy niroo moom nag moom itamit ci tàggatu bu mu tàggatu ci luxal arabiya mhm. xam attey baat yi xam atte yi ci nekk yépp ak xelam boo xamante bu mucc la mhm. ci lay moom itamit ci effort yi lay def ba génne def ji lenn ci maanaa yi nga xamante moom la aaya bi ëmb loolu boo demee même ci biir tafsir bi moom Cheikh El Hadj Ahmed mu ngi koy wax indi fa benn waxu Ibnu Abbas. Mhm. mu ne Ibnu Abbas nee na alquran tafsiru dafay séddale ko ci ñeenti xaaj. Mhm. mu ne benn xaaj bi moom leer na ñëpp xam nañu ko. mooy boo demee comme lu mel ni ki ay qul huwallahu ahad wala lu mel ni ki wa ilahukum ilahun wahid mu ne loolu koo ko wax rek xam na ko mu ne beneen na xaaj bi nag dafay laaj nit ki. xam lu bu xamee luxal arabiya rek mun na ko comprendre uh-huh. ci lu dul muy sëkkan sukkandeku ci dara uh-huh. comme mu ne boo demee ci aay bi ci aay bi yàlla Moussa di wax naan qul hiya asaaya atawakkau alayha wa ahusu biha ala ganami uh-huh. fii yàlla di wax Moussa di wax naan ba fa ko yàlla laajee lu nekk sa loxo mu ne ko lii sama yat la boo xamante ne moom lay sukkandeku bu may dox wala bu may jóg waaye tamit moom lay jàjjee samay samay samay jur mu ne aay la yoo xamante ne yooyu moom dëgg luxal arab rek la laaj mhm. pour mun a génnee maanaa bi ci nekk mhm. mu ne tamit alxu mu ne am na tamit yeneen ñaari xaaj mu ne benn benn xaaj bi ñu ngi koy wax al mhm. mutashaabih mutashaabih mooy bu ñu doon wax léegi ci am mbirum taawili mu ne mooy aay bi nga xamante ne dafa ëmb ay maana yu bëri te ki nga xamante ne mooy mu fassir bi nag ak xam-xam bi mu am ci lay sukkandiku pour génne benn ci maanaa yooyu ci yaakaaram ne lii la yàlla namm ci aay bi loolu tamit dafay séddale ko ay xaaj. Mhm. am na ci léeg-léeg aay yoo xam ne dina ñëw yore ñaari maana laf su boo xam dafay ñëw yore ñaari maana mhm. maana yi tamit daal di yem ñoom ñaar yem ci prix. Mhm. comme léegi boo demee ci ay bi yàlla di wax naan wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata quru'in xam nga salaasata quru'in quru boobu noonu am na ñu koy firee laab. am nañu koy firé ñetti weer. Hmm. ñetti weer wala ñetti laal. presque benn benn maanaa bi benn la benn la. Hmm. kooku tamit taawil laaj na taawil foofu hmm. noonu ci aay boobu. léeg tamit dina am aay boo xamante ne dina ñoo yore ñaari firi te maanaa bi feeñ maanaa bi nëbbu génne yenu maanaa maanaa bi feeñ. li ñuy tuddee tawriya. tawriya ok mu ngoog. comme boo demee yaddullahi fawqa aydihim surtout nag ci suuf yankee nga xamante ne ñoom mbirum tajisim ñoom dañ ko soriñ seen bopp. Mhm. xam nga loxoog yàlla masal mu ngi ci seenu kow loxo. Mhm. waaw bu ñu xoolee coom ñoom suufiyanke yi nu ñuy gisee ne mhm. yàlla amul loxo. loxo waaw kenn du euh, euh, màggaayam bi ëpp nañu du ko. waaw mais xuwa bi lay. waaw xuwa bi wala nasru bi tam ah, ndimbalam. mu ngoog ndimbalu yàlla ndimbalu yàlla force yàlla. force yàlla ci baatu arab bi li ngay dégg yaddu mooy loxo yaddu mooy loxo. effectivement waaw xam nga loolu ni nga koy déggee noonu boo ñëwee firee ko noonu. tamit mun na dafay dafay doy waar. comme loolu tamit dafay laaj Euh, ci benn xeet bi mu bu ñuy wax mutashaabi ci la bokk mhm. mu ne léeg-léeg tamit nag aay bi dina ñëw tamit yore maanaa yu bëree bëri mhm. bu yoree maanaa yu bëri bëri tamit loolu rek la laaj effort la kii def tafsir di def pour génne benn ci maanaa yu nga mhm. xamante ne moom la yaakaar ne lii la ci yàlla nam mu ne nag léeg-léeg tamit mutashaabi yooyu dina ñëw aay bi nga xam mutashaabi la dina ñëw yore ay maanaa yu bëri waaye nag foofu yàlla dafay noppal ki nga xamante ne mooy tafsir moom ci boppam mu orienté ko ci benn aaya boo xam ne moom mooy tafsir. aaya mutasaabi mutasaabi muy aaya muhkama bi. mu muhk muy aaya muhkama bi. Ah, ok comme boo demee ci alxuraan fi yàlla di wax. Euh, euh, fa aynama wallu fa sam fa. fa euh, aynama tuwallu fa waaw beneen bi fa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum non waaw fa hay fa aynama tuwallu. waaw fa sama wàccullaahi namatuwalu fa sama wàccullaahi mhm. waaw fu ngeen munti jublu rek mhm. foofu xibla masalan fu ngeen munti jublu jëmm yàlla jàng foofu yàlla jàng foofu mhm. masalan fu ngeen munti jublu te fekk na ci sama ndigal ngeen fa jubloo sama xibla la di ngeen fa amee sama ngërmaande léegi xam nga loolu xibla way nag defu taayin ban xibla la xamuñ ndax baytil muqaddas la xamuñ ndax kaaba gi la xamuñ ndax ndeyjoor xamuñ ndax càmmoñ waaye nag mu indiwaat beneen aaya nag bu tafsir loolu buy naan waxay suma kuntum fa wallu wujuhakum satrahu mhm. léegi bon mu orienté nit ñi vers Makka. bi maanaam satral masjidil haram masjidil haram mhm. bon xam nga foofu noonu yàlla dafa noppal ki nga xamante leeral la na ko soxlawul mu génne maanaa yi mhm. Ibn Abbas nee na Cheikh Adjama dem indi na nee na loolu Ibn Abbas indi na ko mu ne am na tamit ñeenteel bi mooy ci mutashaabih la bokk ba léegi waaye nag mustaxlaqul maanaa la comme mu ne xuruful hijaa yi comme alif laam miim kaaxa yaa in saat mhm. qaaf saat mhm. xam nga euh, mhm. yooyu seen maanaa dañu ko tëj noon noon waaw yooyu seen maana dañu ko tëj ak tamit euh, euh, alxabar an ashrati shaa yu mel ni ki ki misla ki nu mu tuddati ak yaa juuju wa maa juuju ak nuzulul isa tullu samsi min maghribiha fanaa u daari xiyaamu saa mhm. yooyu yëpp ay aayaat la yoo yooyu yëpp ay am yoo xamante ne ay aaya la ci mutashaabihi lañ waaye nag seen maanaa dañ ko tëj mhm. yàlla rek moom moo ko xam mhm. wala ku mu ko xamal ndax itamit yàlla itamit dinay xamal nit loo xamante ne nekkul ci téere yi euh, waaw dinaa xamal ni loo xam ne nekkul ci ndax moom moo ko wax ittaqullah wa ilmu ilmu laduni waaw loolu wala mu xamal mu xamalee ko noonu nit ki bon mu ne ñeent yi ñeent yi Ibn Abbas ne ñeent yi moom mooy masalan moom mooy moom mooy tafsir alquran. Uh-huh. waaw loolu ci gàttal. am na solo trop. mooy uh-huh. euh, li ma laaj. ci wàllu tafsir te moom te moom te moom ndeysaan yàlla def na tafsiru niya euh, diya u nay rey ni waaw yooyu yëpp moom dafa mel ni indi na ko yëpp la indi yooyu yëpp la indi dafa mel ni mu ngi doon leeral tabaqatul euh, tabaqatul mufassirin. waaw mel ni daf ko mufassirin daf ko def ay xaaj. waaw tabaqaat yi bu ñu ko xoolee mm-hmm. parce que. dafa mel ni ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam tafsiru na quraan yonent bi ndax moom dañ daan def Aïcha daan na wax ne bu aaya wàccaan mm-hmm. eh, balaa ñuy jàll ci yeneen aaya mm-hmm. yonent bi dinañu xamal naka lañ ko war a mën a jëfandikoo application ma mm-hmm. naka lañ koy tatbiqee dëgg la kon alquran dinañ ko tafsir ci tatbiq dëgg la maanaam application nga firi ko ci mais dinañ ko firi itam ci leeral maanaa bi maanaa bi dëgg la kon bu ñu xoolee tabaqatul mufassirin mhm. ñi nga xam ne étape étape yi ak ñi nga xam ne ñoo def tafsir yi dafa mel ni benn bu ci ne leeral na ko dëgg la ba pare jël ci nag mhm. ci noonu na mu tafsiré pour dugal ko ci Diya unay reyni bi dëgg la foofu lan la ci lan la ci gën a leeral foofu tabaqatul mufassirin mhm. wala waaw voilà waaw tabaqatul mufassirin daf dafa bëgg a woon ne rek foofu euh, euh, tafsir tafsirkat yi ñetti xaaj la ñu séddale am na tabaxa boo xam ne mooy as-sahaba radiallahu anhum ñooñu nag ñu ngi ci gën a siiwee ñu ci gën a bëri ñi li ñu tafsir mooy ibnu abbas mhm. gannaaw moom ibnu mas'ud ak ubay ibnu kaab mhm. ak abdullah ibnu omar ak abdullah ibnu omar ibnu as mhm. ñoo ñëpp ci ñu ñu siiwee lañu ci ay tafsirkan lañu ci jamono bi sallallahu alayhi wa waaye nag itamit nag Ibnu Abbas nee moom lépp Aliou mu ne Aliou ibnu Abi Talib moo nekkoon sëriñam ci tafsir mhm. mu ne lépp lu mu xam ci mhm. tafsir mhm. mu ngi bàyyi ko ci Aliou waaye Aliou tamit daal di seede ci moom benn seede bu rafet mu ne ka annama ka annama ka annama waaw mu ne ma ka annama huwa yanzuru yanzuru ilal ghaybi min sitrin raqiqin mu ne Ibnu Abbas dafa mel ni moom yàlla dafa am benn rideau boo xamante ne bu bu yaraax diggante ma xay loolu moo def diggante ma xay mhm. ndax ni mu déggee woon moom tamit Qur'an mhm. bon loolu mooy tegte ne saxaaba yi lépp lu ñu tafsir rek mhm. lu rafet la dafa mel ni yonent bi mos nay teg loxoom ci boppam mu ngoog ñaanal ko ñaanal ko ne ko yàlla yal na nga ko déggaloo alquran dëgg la dafa mel ni loolu ñaanug yonent boobu ñaanug moom parce que gis naa mu fassiroon yëpp Eh, kenn ku ne di nga def say tafsir mais axiran dañuy wëlbatiku ñoom ñëpp dellu ci ibnu abbas te bu ibnu abbas bi bu bu ñëwee man ngay imin man ngay indi waxu ko ne mais ibnu abbas bu ñëwee li ñuy wax waxtaan bi day felenkalaayu wallaay dëgg la dafa mel ni ñaanu yónent bi vraiment wàcc na ci moom wàcc na ci moom lu wér a wér tamit mm-hmm. moo tax bëri na góor gi tamit muy tafsir di ko waaw waaw boobu boobu boobu weesoo nag am na beneen tabaxa mooy ataabiuna mm-hmm. waaw taabi'uuna yi ñoom itamit ñoom après saxaaba yi xam nga ñoom am na ñu dund ak saxaaba yi uh-huh. moo tax ñoom itamit seen tafsir it uh-huh. dafay doon tafsir boo xamante ne uh-huh. seenu tegtal dafay doon lu wér waaw gannaaw loolu tamit nag gannaaw taabiina yi nag taabiina taabiina ilaa yawmina haazaa ilaa yawmi diin waaw day yaatu dégg ni day bëri day day di bëri kon ñetti ñetti tabax yooyu moo am ci moo fa te boo xoolee même ci alquran tafsirul quran bil quran Euh, toujours dañ koy gis parce que yaa ngi indi aaya mutashabiha bi. waaw man ngay dem ba mu yàgg aaya muhkama bi boo ñëwee moom mooy. moom mooy indi mu firil la moo tax loolu loolu moo loolu moo tax mu a la. tafsir pour leeral baat bi foo nga sukkandiku ci alquran. wala sunna wala asaar macha allah mooy tafsirul quran bil quran. bil quran tafsirul quran bi sunna yi nabi sallallahu alayhi wa sallam. vraiment yooyu yëpp gis naa ne gis naa ne góor gi indi na ko ci liggéey bi mu doy waar lool. Euh, tafsir bi ñaata tom la. Euh, ñaar fukki tom. ñaar fukki mhm. xaaj la. Mhm. Mhm. yi ma gis yu bari. yii seize tomes lay doon. dëgg la. seize tomes. li lay wane góor gi liggéey bi sonn na ci en même temps dugg na ci def na ci loo xam ne. presque ñu bari ci mu fassiroon yi. dëgg la eh, yegguñ ci. ndax moom ci anam bi mu ko defee dafa bàyyiwut ci alxuraan dara. dëgg la. moom bàyyiwut ci alquran dara bu ma yeboon ne la indi na ci encore euh, aqwalu mufassiri yu bare bare bare bari surtout ci jamono jooju def ko def ko def ko ñaar fukki tom mhm. euh, ñaar fukki tom yooyu góor gi tafsir ci diggante vingt ans mhm. mais dama gis ne itam am na yeneen mhm. téere yoo xam ne taalif na ko léegi daf doon boole di bind tafsir bi ak it di taalif téere yi wala dafa dafa dafa dafa tënku ci quran bi ba pare après doog a liggéey waaw am na téere yoo mu ko tafsir hmm. mu ngi ko bind. Mm. avant tafsir bi. Mm-hmm. am na téere yoo xam ne xew-xew dafay ñëw. Mm-hmm. mu laaj mu wax ci mu mm-hmm. bind. ci biir fekk na mu ngi ci biir. Euh, liggéeyam bi. waaye nag à liggéey bi moom euh, déggaatuma benn téere ci mag ñi ñu ne taf liggéey na ko. ñu ne def na ko. waaw am na yu mu def avant. tafsir bi am na yu mu def ci biir tafsir bi.